billahi min alsheytan irajim bisimillahi rahmanirahim bu mbàkke abo madiana soxay bu géy moo ko def daaray njurul ay tasin 1991 bismillahi qadiri alqahari almaliki alxafaari waljabaari bismillahi qadiri alqahari almaliki alxafaari waljabaari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 moo jël si surga ya te jël si buur ya moo jël si doom ak waajur ak njaboot ga gërmi ya dem nañ dag ya dem kumma sa jël day mel ni duniyaa jëpp dem yow laajal bés ba sëriñ tuuba fanaan see tuuba ak ibra faal ak seeni taaw ciy booba ku nekk noon géej fanaan si tuuba ku ma dem ñépp na ciy bisam ba ka yóbbu ñooña moo ñu xëy si àjjuma jël si sëriñ sooy bu mbàkke ka yóbbu ñooña moo ñu xëy aljuma jël si sëriñ sooy bu mbàkke waar na ma sëriñ sooy bu mbàkke doomi borom bi laa yega niroog baayam ba sëriñ sooy bu mbàkke doomi borom wi laa yega niroog baayam ba borom jaloore ya borom tawxiid ja suufi yu bay wane njubug lislaam ja ponk bu déer ba woon ca sow tuuba ku xam ka buur yàlla toroy yonen ba sayxul murabbi xayra man yuraqi man aale oo yejloo sada almutaqi sàmm ba sàmm ay wareefam jub-jubal ñamu jaboote ba ñu maase refatal kooka la xas fekki xaddiimal mustawa ci ay tasin jullit ya bokk teew fa aljana ak ñoñam ña dollee teeru lislaam ji ak doomam yi bokk waaru naqaru dem gi bi tegaa ko yokku mbooloo mu takku naale bi gis nañ ko muj gu rafet gam sàkk woon am na ko ngir kenn jot la déggu wéradéem bay seenu mbir guddi gi muy nuyoo di laylatul xadar ba bët setee la dem te julli na fajar bàyyi pexe yud na ko ndabal teraanga ca guddi googee ba mu xool bagaan nga ay gan yu dëkk sow guddi googee siyaare nañ ko laaj ko kan ji dégg gannaaw fajar la woolu doomam abdu sol sër yu laab yor kurusam di wird mu ñëw mu wooloo ko sëriñ abibu waxta tulooxe ku ne ñëw yu jiibu ñu fekk mbër ma ñaq tooy ni xipp soo noo joor ji daal di jóg di upp bam yàggu laal sëriñ abibu naa ko bi far ko bàyyi na xool naa ko ndeke firaaqu ruuxi an saatil wali xaddir taraa ku nekk jóg di nattale kenn xamul ci moom leneen wallaahi bàyyi baa ko saytul ay mbiram lillaahi ku sikki sàkka lii na laaji ballaa mbaate sëriñ abdu ma xam ma yil ñu daa di koy yendal di maslaa kër ga waxi ko sëñ bu mag ba doon kilifa ga sëriñ ba wax murit bu yaatu ab teeñ mooy seexu murtadaa fandar géej ba doog jotee la ñenn for xibaar ba wisaare mbir ma ba ca boppu raay ba jooyoo ba dal murit bu nekk yi xaacu ñëlay dëfal ñële di tànkuy jaaju soxla ya doon benn ku ne kii waaxu di ko siyaare ji ku ne kii yuuxu yàllaa pikiir murid yi ñëppi rab-rabi pincam ma fees del ku nekk kiy sab-sabi mbokkam ya ak dongoom ya ak njaboot ga tem moo ba mel ni arafaati makka fii laylatil sibat ina yu wér lañu ko gunge addunaay kërum naqar fii laylatil sabti li isriina yu wér lañu ko gunge addunaay kërum naqar fii laylatil sabti li isriina yu wér ko gunge addunaay kërum naqar fii laylatil sabti li isriina yu wér lañu ko gunge addunaay kërum naqar sëriñ abibu mbàkke moo ko waajal ca biir këram cheikh murtada ko ñaanal moo gaaraloon barab ba def fay xamtu néega ma woon min xablu lii di njortu fekkoon na it amirul mu'miniina yandu si woon na fa mu jug sa baana loolaati seenu tàggutoo ci sayir seen saafoonte baa waral murid ya ser ku weddi laajal abdullahi sakk moom la digal keroog mu yendoo jàng kumma sayar daara di teew fa saasa dongo ya saytu bir ya laammi saasa ñële di wàcca alxuraan di muuru ñële di yëkkati xasida jooru ñële di wàcca alxuraan di muuru ñële di yëkkati xasida jooru ñële di laddanti mbirum bisam doomam ya bokku teew farontaawam borom basira noon na sooy du jekki xalifatul xadimi doona sakki rab yaa ko doon jooyoo mu ñëw di ko xibaar ñu naa ko waaye ndekki woo doy nag waar suuratu furqaani la am salnii mislu abi xis u fi xaqi sapol aradi wa samawaatil ula jooy nañ ko ànd ak way ragal ña yàlla uroomi tuubaa léppa jooy fanam ya ngir li mu daa dox guddi xuus mbeddam ya foo dex du gis ab jullikaay bum mu julli ci ñeenti xibla yi di ñaan di dolli diiney rasuulu lépp a jooy demam ga jarag yi ak bàyyi jooy nañ fàddu ga xasida yi yëpp a jooy maal awraadi yeneenti ngir ya jooy na fil bilaadi aada yi diine nangu léppam jooy na ka tey ca guddi tey ca bëccëg dem na taarixu ak dikkam ci dun yaa ko danaa ca bind tee nga ñëw toxal ko taarixu ak dikkam ci duniyaa laaj ko danaa ca tee nga ñëw toxal ko maax la càllal lak ndeyam gaa fam ndayu ak fam baayu ak seen daraja ma jëkk laa wax càllal ak ndeyam jaa fam ndayu ak fam baayu ak seen daraja wal baladu tayyibu yaxriju nabaat bi si rabbi li mata xalaat ndayam satub libaas la bayit lool mi waa malin muy sin cosaan ci réew mi nu joomu rusdin man biim xadir tadaa xadir tadaa man asa umu tadaa ma paate si mooy libaas waaju ñu xam te muy ko baax mbokk ma déggal te nga gëm ma paate callaloo ci maxtaar ndumbe kookaa di xutbu nag ci xërnu boobee baayub ndeyam mooy muudu asta jaxate kang fóora jëy du ndew ñaxam filmileti yéerii di maamam xeeti asta yaayam maxtaar ma dëkk lappe moo diw xeetam sëñ muudu asta saadixul iraada tawiilu umrin tayibul masaada maj sob la woon buggam xadiimal muxtaar min qabli jëy sesin dadaa ñëw di siyaar sancub ku baax ka bu xootal mubaaraka la astu daana jël njaboot ga sancub ku baax ka bu xootal mubaaraka la astu daanu jël njaboot ga góor jigéen jébbal sëriñ bu mag ba sëriñ ba xam yéene ja fay ko xol ba pay gaa waral sëtam ya teggi tuur ba yokk jumaa ji mar bu kaw gag rumba pay gaa waral sëtam ya gi tuur ba yokk jumaa ji mar bu kaw gaag rumba pay gaa waral mbër mi le feeñ fañ njur bal juróomi fan ci weeru koor al sa pay gaa waral mbër mi le feeñ fañ njur bal juróomi fan ci weeru koor al sa sisal fa ummuwa maryamu faaqat xayraha nakk naag moom sannatam wa sëraha ndeyam jalàqu ajaban min amri bamba di fii maqaadi sidqun aluwa mbokkum ndeyam ma tudd soxna xëri mbar moomoon tulil nampal sëriñ ba fil xabar mbokkum ndeyam ma tudd soxna xëri mbar moomo tulil nampal sëriñ ba fil xabar maam faati jaxate mi ngoo yor ba gannaaw feram nga sax fa sëñ bu mag ba am na fa moom sappan si nii na dëx baa baayam dalal ko ban sin la dal baax boobee la baayam def ca moom lam def ca moom ndaxte da koo digal digal lu ñu yéem mu def ko bàmba xool ko mu jël ak naan xel ko jox ko mbër ma daa di koy naan mu del ko tuubaa boole koog najaayam digal ko jàng ak yar aw nitam ñetti at ak tuuti la wattu alxuraan déqi balan xaafi sëriñ bi woolu leen mook seexuna saalihu seex abdou samad ñu wuy ji ànd ak seen nijaay doona fanat déppoog bi su sa si an jaasilwaat xoolaat ko fii ayaati seex abdoulaat camoo maat la toppi taawu baayam seex mustawa xutbul waraa mubdil topp ko moo waral mu dem usul maab ci tam sësin moo magam saw ba sawaab ci na sësin la del si tuubaa samtizaal nekk ak sëriñ abiibu baabul lenti daal mboolem lu am njariñ ci suuf asamaan xam na ko xam la ban sësin saana wa lim bind ci këmi lexal ko ci ikam diis na gëleem waayam du rëccu fu mu jëm lim bind ci kaamil yaxal ko ci ikam diis na gëleem waayam du rëccu fu mu jëm wër na ci réew mi gis na lépp ak fépp nekkoon na bokki barga at ma kepp moo leemu bokki barga sii di boobee la faatu moo ko sange mbubbu jullee ko suul ko guy ga mooy guy sii loolaay atu maam cerno bul ma weddi magam jabu sawa def ne baayam def kilifa ci aada bay lat mi xam jëmmam jë ak njaboot ga ak dongom ya bay laata cay dogal ba jox ko tool ya 36 la njëkk a samp daara fa ndimbu jóob bégal na maamam jaara kantong ba maase gëm ko boole topp ko maga ku ndaw góor jigéen jiital ko sanc na bël ak walalaan ak béyti ja ak mbaam jigaan ak saam fa baara xarija taqoog feram ya bu xëyee ànd ak ñoom di gis la ñuy liggéey di xam la ñuy waxtu wu jot mu dig leen nodd ñëpp teew mu jiite leen fàttali leen nitam du reew bu jantu soo ñëpp si kar ba julli gee bu njël jotee mu yeete njël bàyyi tukki ci sat sasin la dëkk Tuubaa dëkk fa nangootu koo génn ba xëy na tëdd fa ci sat sasin la jekki tuuba dëkk fa nangootu ku génn ba xëy na tëdd fa foora su baay laat moo kulee mu at sasin tuuba belalit moo kulee mu taf sasin ku jot jëmmam ja déglul tuuti danaa la wax lenn jëfam du tuuti ku jot jëmmam ja déglul tuuti danaa la wax lenn jëfam du tuuti lay sa soodu kal xikaayatil walaa addxaasu ahlaamin ka wax yin musjalaa kuy sët ci seex bu jaarul ci loxoom ab kem ca doomi bàyyi aw na cay loxoom kasaaka wil daanu masaahixul kiraam ñépp fa dem ba wattu am xeral maraam kuy doomi soxna mbaa leneen jànge na fa ku sa génne foofa dem doon kilifa moo daa xamal cosaan xamal bànqaas ya maas baal xadaata fil wasiya moo daa xamal cosaan xamal bànqaas ya maas baal xadaata wasiya mooy bind àlluwa yëpp topp mbéq ya di déglu ñuy gëndale ak nafar ya nekk ca biir dongoom ya xam la muy def loolaa waral tëjum nga moo am jërëjëf mësula jàngal kenn xam-xam di firi mësula wax ba wax arab ki gore xamal na ay mbooloo kitaabullaahi seen limba ful nay junni doonallaahi atum sëriñ faadilu laa tabbi loxoom xam naa fa ay junni yu mokkale fa moom atum sëriñ faadilu laa tabbi loxoom xam naa fa ay junni yu mokkale fa moom seetal ñamaa seeg doom ja abdul ahad la jëkk muy berden bu saak abdul ahad ak seen kuréel ya door a seetlu ñuy ñaar jàll ca kee maanam guréy ganeel kaar kay mafradul alam ka di ful fàtte waajur waykat wi mi dee sul turam di sëñ gay sadawal illaahu ridwaanu man xayra jaza ullaahu canta ngërëm mu am ci téeméer ci maam Suhaybu ak ci baay laat jàmbaar kon day nga xam ni wenn waxtoom ful na téeméeri wàlliyu ngir topp sunna kon day nga xam ni wenn waxtoom ful na tiimiiri waliyu yu topp sunna dundal na alxuraan dundal sariya dundal na xam-xam mus def sànniya dundal na alxuraan dundal sariya dundal na xam-xam mus la def sànniya dundam nga ëmb na dund ak ak saaba ya xawsu ak lawtaat ya ku weddi lii na seet résultat ay jëfam ak na mu séddalee dundam gàkk ay fanam bëccëg ba daf daa jàngale ka bind ak yar gonem ya bu guddee bañ tëdd muy jàng ka jullee ka wir daka xalam kii buur yàlla di ñaanal ña ko gëm kee këram nga foofa dox waxtu suba dog nga fa tànkam ba du jënnal ta du ba kee këram nga foofa dox waxtu suba dog nga fa tànkam ba du jënnal te du ba foo làqu ngir dallu mu daal dina fa seef ni la defil dara jëfey fajub xiif keesi këram nga foofa dox waxtu suba dog nga fa tànkam ba du jënnal te du ba foo làqu ngir dallu mu daal dina fa seef ni la defil dara jëfey fajub xiif ci senn saa lay yéegi góor laajal sànit masant sant njaay fa nusratu xubbil tufiit ci senn saa la yéegi laajal saxiit ma njaay fa nasru xubbil tufiit ci senn saa la yéegi guur laajal saxiit ma sant njaay fa nasratu xubbil tufiit ku dem ci xumbin ya mu daa di koy laaj ku dugg kër jigéen ña dégg mu ne sooj naaj ak sedd du soppi mbaaxam te bagaasam loo ca laal xam mbóotam ku mas ni jàkk leer ga daal koy màndal ku weddi lii xolam ba laabul këram ga moo doon daaratu raxmaani waxal watin bambaa wax bii këram ga doon daaratu raxmaani waxal watin bambaa wax bii bamba ko dëkke woon ca bam daayaale kër googa ak daaru xuddus fi laxaali saabu dikkaa foofa ñu may ko boppam lee tax ba weetug seex son yi bu doy ndam seex Moustapha ak sëñ Fallu kër gii lañ dale loolaa di mbootum seex aboo di jàngale kër la gu yaatoo genn wàllu kilomètre guddaay ba mat na loolu nanga ko laajaat péncam ak loo ca sowu kër ga lépp ca bokkoon dig wa moo doon guy ga nday joor ba ak càmmooy ba kër ga jël na sin xaaju looye waxtu woowa wóor na gannaaw tukki ku baax ki at ya topp sëñ mut laamin ngay ya salaat na lépp ci ndëggi lal maam cerno waaye bam sasin la ko joxaat addiya taaw wam sasin ci ndigalal maam cerno waaye ban sasin la ko joxaat addiya taaw wam sasin seex mustawa woolu sëriñ abdulaat digal ko dëkke kër ga niimal multaat mu daldi koy dëkke dëkkal ca saawaay sëriñ soy bu nang ko laajaat baara njaay walla nga laaj ko noddukat ba sëñ kan maga doon santam ba mooy sayar kan man xam naa taarixu kër sëriñ bu ma ñëw la wax jagley sëriñ soy bu man xam la naa taarixu kër sëriñ bu ma ñëw laa wax jagley sëriñ Souhaïbou sëriñ la boob kenn musula gis ku mel ne moom sàmm la boob jofal na reggal ña fa moom amoon na ikmatu te am aqiiqatu kuréel fonkoon nañ ko ngir sariyaatu tërbiya ak tarqiya ak tasfiyatu daana ko def ci benn xol ci lansatu taalif na ay téere yu doy kuy jaamu rawantawul puukarewul du taamu taalif na ay téere yu doy kuy jaamu rawantewul puukarewul du taamu xurratu aynihi wa buxyatul murid wanaylu awtaaril manaalul mustaweet lim bind ci ndénkaan di jox ñamu yilif mënee su koo lim ci arab ak ci walaaf luy tax xam luy taxaraw luy tax a gëm bawu ca lenn ku ko sopp am ndam nihmal basiiru wa nasiiru mursidu alxurwatul wusqa tabibul masnadu ma dellu wax la jagle yaa jikkoom ya wax la doxin wa faf la wax meloom wa la jagle yaa wax la doxin fardul kifaaya la coor may tuubaa lampub inaaya la ci sunnas mujtabaa musula jàng musula taawil du maroo du naaguloo du wóoluloo te du gëroo du naal du semb te du lënt mu bafa te génn kër la ma saam ba xëyee fa kaggu ga bàyyi laa tabax fa tuubaa urum ja ab cër ma woon ca booba kaggu ga bàyyi laa tabax fa tuubaa urum ja ab cër moo gën a dëddu gaay dëddu ca bawoon moo lokki noonu ya nangu réew yañ dëkke woon aqbalati dunya ilayya qablu wa bitu fadaala anni qablu wa bada anni adbarat walam amila li kawniha daara sulam wa bada li aqbalat wa inni aqbaltu lillahi wa abqa minni yi yetti mbir ci seexuna Suhaybu la dajaloo wiraasatan laa tuslabu yi yetti mbir ci seexuna Suhaybu la dajala wiraasatan laa tuslabu huwal muriidu saadixun mukammalu rafet na ak mbiril rafet na ak yalu lim xam ca baayam fam ko lam ko jaral laaji ko mustawa ma baayam moom jurul lam xam ci baayam fam ko teg lam ko laaji ko mustawa ma baayam moom jurul baay mbàkke caama wax ni seex aboo ko wax ku weddi ibra faal du dem ajjana sax baay mbàkke caama wax ni seex aboo ko wax ku weddi seex ra faal du dem ajjana sax du xaajare ka xuuse daawul seere nar du ñaawalit njortam te nit yi du ko far wéetaayu koy wétali daawun dajaloo këran di soowaloo ka dox di xalaloo wéttaayo ko wéttali daawun dajaloo këram di soowaloo ka dox di xaxaloo wéetaaye koy wéttali daawun dajaloo këram di soowaloo ka dox di xaxaloo xayru taamin lil muridi saliki dawaamu shikrin sil jalalil maliki wa xayru saadihi tuqa wal fawru liman loo qablu wa bahdal amru ama sila wa faqul sayful wara bi yakunu qaatian habla tama yooyu bayit Bàmbaa ko wax seetaat ko te ku taxoog Seex Suhaybu bu laaj ko yoruli sek ganalewul du ganale du gaaruwaale du xalab te du xuule moo dëddu adduna ji jublu yàlla masula lépp lenn ngiru xam yilla moo seppi ay loxoom ci lépp luy jeex moo daylu moo wakiilu moo tax ba ma féex du sakk jëf du xotti warma du xalab du beccingal kenn naka def lu yàlla sib dogoom nga ak takkoom nga yem na baay ba ñiin fukki at topp génnul Tuuba dogoom nga ak nga yem ba ñiin fukki yi topp génnul Tuuba doxiinu njëlbéen nga lamma ga taale jëmmam ja ak nasran ba daawuñ laale xamam nga daa landi ba daawul daago raglu ga daa ànd ak ku naago maam xëri mbar noon na surañ soy bo daaniru daa mba faf jagoona lépp maam xëri mbar noon na sëriñ soy bo daaniru daa mba faf jagoona lépp turam wa mustaqla delluy jaamit al alamu kullu waahid bi tasalsuli zawil maqaarib bi isdiyaadu isatal aqaarib niru na baayam ay fatan wa suudaa ak fonk alquran tofal ca wirdaa niru na baayam ay fatan wa suudaa ak fonk alquran tofal ca wirdaa ak fonk jàkka teg ca jullig mbooloo lum masa sol Seex Bambalay misaaloo ak bañ tubaab ga ak waxam ak am colam déggutu làkk wenn dut ay wolofam ak mbañ tubaab ga ay waxam ak am colam déggutu lakk wenn lut ay wolofam lu dul boroomam di yërëmtalu di lox cey ko ko portale bu bis baa du wax du dégg lenn du ko gis te du ca jëm cib rajo mbaa cib tele xel ma du xalam du dégg lenn du ko gis te du ca jëm cib rajo mbaa cib tele xel ma du xalam du dégg lenn du ko gis te du ca jëm cib rajo mbaa cib tele xel ma du xalam lu dul boromam di yërëmtalu di lox cey ku ko portale bu bis baa du fa wax bu ma raxee mu dugg mbaar di soonu di bësulu tey wirdu kiley ma soonu dafa dundal diine ba noppi dund ko mësla moderne ba kanam yàqulu ko borom rum la woon ku fonk wëllëre daanako ko xeñtu ba ca sët ngir gore boroom urub la woon ku fonk wëllëre daanako ko xeñtu ba ca sët ya ngir gore du fàtt démb du marog waa jamono lekkul ci diina sarra lum am jox nanu docteur la woon fii sahirin wa baatini ku gaaw a sant jekk it waxtu wu ne ku masa la fakk mukk kum ma yar fu mu tànk xam ko yaraa bi kasfin muskilaatil xubri kama yu sayidu xafaayal amri gaalug sariyatu la yab bagaas ba xuus ci aqiiqatu ba teer fa waax ba mucc musal yàqul te kenn yàqanu ko mooy porte baayam baag njol màkka kun fa yëkkoon la yor falaata sukkoon kum ma woo foo mën a yëkko ku ni wax la woon ci wàllu duniyaa warab su kaafin aw loo sakkiyaa nee na walaf nurub walaf mooy dara jaam ñeneen ñu muy nuróol ñu jàppe ko jaam nee na walaf nurub walaf mooy dara jaam ñeneen ñu muy nuróol ñu jàppe ko jaam diisoo ko naaslu ak di laaj ñi gën a xam boole xelam caada moo doonoon mbiram moo gàddu woon léppam amul secrétaire jiwriñ ya yor toolam ya doon seen mudir du nattalee kalamb sàkkaa di fétal du samp sempi te du weer waaju xamul du jaaweley mbir fonk waay daawul waral mu jox ko mbir mu mu yoyoowul aka fal lum xam ne nga ko te doy nga ca bu wóor dootu ca déglu ni te faf di laar du fekke menn na jëlu julli jumaa mbaate jullee ku faatu nihimal muhtama jullik juma daana ko teewe ay saa bu ne jalañ xutba ba yegg yi saa daana jullee ku faatu daa siyaara armeel ya waxtu guddi daawul waara daana du jiite koriteeg tabaski mbaa sax mu maamuunu fa dimbu googe xutbaa ki waxtaana ki andib gàtt fa ñuy jullee du woon mbiram du ngànt am na ngërëm ci yàlla ak ci ak ci sëriñ tuubaa ka wuutu am na ngërëm ci yàlla ak yoneen ak ci sëriñ tuubaa ka wuutu yoneen baaram ya lay tasabe ba dal fardi mook ñaari mbokkam ya wara bulardi ab xuppekat la woon te gis ko doy xaas loo masa ci moom mu xam ko ci xiyaas ñam toqiit seenu meloo ka xam am kilifaak déglu ndigal mooy seen ngalam palaab këram ga ak dëkkin waak jàkka ja ak mbaari kees ga xool ko muy njaareem ga ay naa fi laam ci weeru koor takk féeru motee nga yër mi nanu seex basiiru fu masa jekki jublu penkuy jàng kum masa gis ngay daagu yor nga jukki daawul nelaw du sànk wenn waxtu ku masa toog fa moom tëloo fa wantu daawul nelaw du sànk wenn waxtu ku masa toog fa moom teloo fa wantu jàng ak julleeg jekki di may too jéggi waxtaana ko ñam rekk lañ daa dénk kum sa jox ndigal tofal ca mbindam loxoom bu taaru ba di sant ak di gërëm mooy waane moo fanu wallaahi moo xerañ lum ma sa junju ku ko topp gis njariñ ku denc kumpala ba léewi gànnaar ku fonko ab deram na muxtaar ku denc kumpala ba réewi gànnaar ku fonk ab deram la roy na muxtaar xalima gaay wuuti moo doon ndawam la koy lijjanti lu mu doon laajal ñoñam salaatu wasalaam la def signature mënee su koo koppi mënee su koo diir salaatu la def signature mënee su la moo ko waxoon ka doon labat saawaaya sakaawu aqli saara mislal wax yi xawlu abi waarisi nabi du fakk njëkk mus la denc ay jóor minal xutaami kii du xiinu yoor yoor jëmmam ji ab jant la fil maasuubi waxta tulooxi wala dal maqii bi kay joxe ak kay laaja yam waxtu gisam di su fasetee ñaar ñu wuute ay anam ci benn buntu la ko jaare dee fëgg ak di luy xaare ci benn buntu la ko ñëppi jaare dee fëgg ak di luy xaare ma dikk wax la lan ci xar baaxam ya xaw a feeñ wax ko naa dolli gëm ma dikk wax la lenn ci xar baaxam ya xaw a wax ko naa dolli gëm kum sa bindal sa ko baa la kum masa toppal mbéqi weg na yàlla kum masa jàngal am na barkeeg fado kuy laaji seere mi nu heesal mado lum masa léemu loola am mujj gu rafet kum masa ñaanal aajo yooya fajo it borom alal ja tudd Baabakar Kebe ba mu ko muuñee ne ko ndeysan la tabe tàndar ma gee fa penku seexunal xadim moo tee ñu gor ko mooy rawoon fu war raxiim lu mas ni cim mu yàqu naagu mu faat ku gis jëmmam ja xel ma dem ca yàlla xaat moo ram wëllëreem wa docteur Fall ma woon ca mbàkke booba bis xar baax la moo ko jullee taxawu rabba bind muul ba ca raw da tomba bul ma yedd ndongo géyëg baay seexu kan baay amadu moo leen jullee ak gaay yeneen yu fàddu Ibrahima ñaan nee murit saadix la te Mbàkke kañ it murit maj soob santam ba sant sekk dëkkoon Tayba moo ko defoon niib rafaal ci Bàmba Alaaji Siibi dëkk Cees tukkeem ba fa Makka Penda moora doon attem ba Alaaji Siibi dëkk Cees tukkeem fa Makka Penda moora doon attem ba rey nañ morom ya ba mu sës ca tuur ba Seex Bamba teew génneel ko maam Suhaybu Seydina Baay Dan Sekk Baay Moodu Ture Sëriñ Sulay Xumba ma woon fa mesere laram ba sant Géy te saytuy daaraam moo yokku fan wa ba mu sarda daaraam sancu barab ba tur wa doonoon ñanka ngelaw la daa bari te ndox ma manqué ci bat sa sin ko woon fonkaat ko ànd ak sëriñ Abibu naa ko ñëpp fu jëm si ku fi ñëw nang ko dëfal mu yendu foofe ba ca ngoon ji ko xelal dellu siwaat na fa joxoñ koy xar baax dem naa ba gis lam ko waxoon ci ay taax ñan barab la woon ca sowu Tuuba seex am satoo ko gor ni sang ba la woon ca sowu Tuuba seex am satoo fii sol sa seex bamba moo ko ko digal ndekete booba ak njabootam lay goral daana fa jàngalee ka bay lu yaatu oromi tool ya teewe naa ñii bil mustawa lii banal kuddoosu bambaa ko dële foofa fal taqiisu taarixu feeñuk bii barab ak yes ga ak daara ja ak ga ak moomeel ga sëriñ sooy bu may rayisul axyaar moo fa defoon tokkoor joxoon ko saar sëriñ sooy bu may raxiisul axyaar moo fa defoon tokkoor joxoon ko mut saar fii taf sa sin gannaaw ba seex abdulaat takkal ko fay néeg at sa sin doona fanaat daaj loona waa kër ilimaan boobu silla lu mat juróom ñetti baraag yu sell sëñ Moodu Mbàkke doomi abdourahman def na fa ñeenti néegi ñax bil sëriñ Ousseynou Silla moom diiwaani fetañ juróom benn yu selli yéene ci bat sa sin saa turandoo xëy gaare séddale néeg ya def fa ñaari daara sëriñ Omar Sey ak sëriñ Omar Gueye ñu naa ko sëñ Gueye ñoo fa jiitu ñoo way ci bat sin di benn fan guddig dibéer di rakki gàmmu bët ba sébbi la riir ñu lii ña gox ba soppi turu wa Tuubaa Madiyaana wat sa sin la xew ca booba sëriñ bi war raas na fa kër Seex Abdu def lu faab tabax digal ko Abdu taarixu bi barab biral naa nday ba dikk melow jëmmam ja taarixu bi biral naa nday ja ma dikk wax la nag melow jëmmam ja taarixu bi barab biral naa nday ja ma dikk wax la nag melow jëmmam ja loo makaarimu daxat saa fisqi wal xalqa faaxa xulluxan kal xalqi kaana yetoolu kulla man maasaa u yataku bi tabasumin sallaawu mësula juuyoo ku ko wax mu gëm ko baa mu ne cell daa di geesu muuñ ko ku taaru mbind la borom taxsiisa la borom basiira la ku ma taarif la ku ma nasat la woon ku daa silwiise ku bari tàngooru yaram bul xuuse du ñàkk itte kenn waaye xaalam gan ko xam toloo ko laaj am xaasam bindem ba mat na sëkk gàttul tuutul ñuulul te xeesul mbuxriwul te noojul gangul lasul dërëg dotam sori na ko taqak na sag rinki itam jegewu ko sëgg kasoog defu ko woon kamaal la semul te laggiwul ku daawul rëd la dooxul te setaxul te pattul jëllul ku yarwaan caaw defin la déggal dooxul te setaxul te pattul jëllul ku yarwaan caaw defin la déggal jawaamiul kalaami moo leen boole imaamu raasixiina laa leen jaale fasiixu nutqi saahibu diraaya aboo masaajida borom inaaya lii moo di portaleb sëriñ Suhaybu waaju ko seetlu xam lam-lamboo yaa xayra day fin moom la ruuja tool yaa sal bu saaraati la jaage jaag ba yaa xayra day fin moom la ruuja tool ba yaa sal bu saaraati la jaage jaag ba taxawlu naa wala afi bilxaaya wa fii la sii sakkartoo kifaaya marsiya baa ngi jaal borom sellal ga murit bu nekk ko tasel siggil ko yal na nu yàlla taas ci barke mujj gu rafet fa moom te ful nga néelam nangul nu jéggal nu tafaf gërëm nu yaatal njariñ li boole kook te xel nu suma salaamaani ala si sunnati wa alihi wa sahbi bararati amin allahuma subhaana rabbika rabbil izzati amma yasifana wa salaamun alal mursalin